docteur euh, Malick Diop euh, ñu ngi lay nuyu am na nañu mbégte lool dalal la ci matinalu tey bi maa ngi leen maa ngi leen di fay di euh, kontaan lool li ngeen invité di mm-hmm. kontaan waxtaan ak doomu réew mi ñu nekk yow yaay directeur général bu ASEPEX euh, ay fan euh, mu ngi ni aussi nga nekk vice président commission exécutive bu BIE mooy bureau international des expositions euh, bu Paris ngir tàmbali waxtaan wi nga nga wax ñu justement sa mission yu bees yooyu lan la wundu lan moo fa war a nekk sa taxawaay. waaw dañuy jàpp rek ne bu ñu yegsee fii ci bureau international des expositions. Euh, li ko waral mooy euh, liggéey bi nga xam ne Sénégal def na ko ci mbirum euh, jënd ak jaay ci bitim réew liggéey bi nga xam ne ASEPEX def na ko mais surtout stratégie bi nga xam ne président de la République depuis lancement plan Sénégal émergent président Macky Sall na te liggéey bi mu yombal ko lool lool surtout yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci ndaxte stratégie boobu mooy stratégie bi war mooy stratégie bi ñu war a def mooy stratégie bi nga xam ne moom moo ñu permettre ñu yegg si euh, fi ñu yegg si tey donc di ko ci di di li ci euh, rafetlu vraiment euh, li nga xam ne stratégie président de la république Macky Sall teg ko ci liggéey bi nga xam ne moom la def donc moom lañ koy dëjee ak peuple sénégalais bi yëpp donc di wax rek lenn ne tey boo jëlee mbirum koom. Euh, li ko lal li lal économie lal euh, ci àdduna wërngël képp mooy jënd ak jaay parce que loolu rek tey moom mooy déterminer naka la nit ñi industrie yi di doxee naka la production bi di amee naka la nit ñi di liggéeyee naka la nit ñi tamit euh, dem beeg dikk bi amee loolu yëpp li ko lal mooy jënd ak jaay mooy importation ak exportation te ci loolu li ka li nga xam ne moom moo ëpp solo ci ñi nga xam ne dañu signé contrat yi Euh, ci jëndkat yi ak jaaykat yi mooy euh, ndaje ndaje bi mooy forum économique yi nga xam ne day am ci exposition universelle exposition horticole exposition internationale exposition thématique salon professionnel foire ak yooyu yëpp ñi nga xam ne moom mooy kuréel bi gën a rëy ci àdduna wërngal këpp bi nga xam ne euh, cent quatre-vingts pays ñoo ci nekk te pays yi nga xam ne ñoom ñooy nekk Nations Unies Euh, mooy bureau international des expositions bureau international des expositions nag ñi fa nekk su ngeen xoolee commission exécutive bi fukk ak ñaari réew ñoo fa nekk donc bureau international des expositions ëpp na euh, ëpp na téeméeri at bi mu amee ba léegi su ngeen gisee exposition universelle d'ailleurs bi ñu koy euh, bi ko France mujjee organisé muy cent quatre vingt ci la defar Tour Eiffel parce que Tour moo nekkoon ci digg exposition universelle bi pour wane rek ne day loo xam ne dafa am solo au niveau mondial tey jii nii Afrique dugg na ci y a huit mois y a huit mois la Afrique dugg. Hmm. pour la première fois euh, commission exécutive bureau international des expositions donc Sénégal représenté ko à travers donc ma personne mi nga xam ne mooy délégué BIE bi. après bi ñuy def élection bi y de la euh, y a de cela quatre jours ñu élire président bi président bi benn benn euh, waa France la. Euh, ak vice président bi donc vice président bi ñu jël doomu Sénégal donc bu ñu jëlee doomu Sénégal jël nañ ci itam doomu Afrique. que tamit euh, dañuy représenter Sénégal foofu représenter tamit Afrique foofu mm. donc loolu sur le plan diplomatique loo xam ne la victoire diplomatique bu Sénégal la victoire diplomatique bu également Afrique la. Mhm, jërëjëf am na solo alors euh, yow yaay directeur général aussi bu ASEPEX maa ngi koy wax sànq est-ce que am na tiitaange bu ngeen am justement euh, ci euh, xëy na koom-koom bu àdduna bi ni mu nar a bu ñu sukkandikoo ci deuxième vague contamination Covid 19 bi nga xam ne amaat na ci réew Europe yu bëri surtout ci wàllu exportation bi du ñàkk ay njeexital lan ngeen di xaar ci wàll boobu. waaw xam nga booy def li ñu naan suivi évaluation dangay ngay njëkk a évaluer li njëkk a romb li nga xam ne tey jii mooy première vague bi euh, en attendant xool deuxième vague bi lu muy def première vague bi déjà rek bu ñu jëlee mois de février bu mu jotee rek mbir mi comment tàmbali na sooxe parce que boo jëlee tey exportation Sénégal exportation Sénégal moo nekkoon secteur d' activité bokkoon na ci secteur d' yi gën a indi koom-koom i gën a indi croissance ci Sénégal parce que deux mille deux mille deux mille dix neuf rek bu ma jàppee deux mille dix neuf ñu six cent quatre vingt milliards mille six cent dix milliards yegg neuf cent quatre vingt cinq milliards donc am une croissance de dix huit virgule huit pour cent loolu moom musul am ci sur le plan économique au Sénégal donc loolu fexoon ba koom-koom bu bëri bëri bëri bëri bëri buy jógee ci bitim réew dugg ci biir Sénégal mille neuf cent quatre vingt cinq milliards euh, xaalis bu la mm. euh, bi ñu defalee dawalee deux mois janvier ak février ñu dépassé vingt pour cent de croissance ñu dépassé vingt pour cent so muy koom bu takku toog ba si yàgg rek covid ñëw bi covid ñëwee euh, ñu teg frontières yi foire amatul salon amatul exposition amatul suñu entreprise yi mënatuñ dem extérieur pour dem xool wane li nga xam ne lañ lañ lañ euh, moom la ñuy jaay extérieur et cetera donc mbir mi commencé sooxee waaye ni mu sooxee ci ñun noonu la sooxee ci àdduna wërngal képp réew yëpp réew ku si nekk tal sa bopp Euh, nit ñi même sax pour jënd sax liy jógee extérieur muy lu lu lu poser problème. Hmm. mais comme deux premiers mois yi dawaloon nañ amoon nañ croissance bu rëy c'est vrai que mois yi euh, mbir mi sooxe na waaye lu bëri tey jii nii croissance bi ñu tàmbali woon moo ko xaw a atténuer d'abord ñaareel bi état du Sénégal dafa ñëw toog commencer appuyer tey euh, entreprise bi parce que président de la République dafa toog bu benn instant ne nañu def li ñu naan plan de résilience Euh, économique et sociale mu jël benn volet bu ñu naan volet économique hmm. boo xam ne dafa dafa ne stabilité macroéconomique euh, entreprise yi war a waruñ daanu mais également employé dañ leen war a maintenir hmm. mu ne entreprise yi tey jii nii su dee entreprise ay exportatrice lañ su fekkee ne maintenir ngeen seen personnel soixante dix pour cent seen salaire dinañ leen appuyer entreprise boo xam ne tey am na plus de cent milliards euh, cent million de chiffre d'affaires annuel dinañ fexe ba Euh, appuyer la à travers des fonds yoo xam ne daf lay daf daf lay dañ lay defal prêt bancaire fonds de roulement ak fonds d' investissement ak ak ak ay investissement yoo waroon def ci année bi ñu ne également entreprise yi nga xam ne euh, dañu am moins de cent million cent de chiffre d' affaires annuel dañ leen defal benn plan kiiraay liggéey boo xam ne FONGIP moo ko yore euh, mu am tamit soixante dix mille milliards yoo xam ne FONGIP fixé na ko de fonds de garantie pour banque yooyu am deux cent milliards yoo xam ne mun nañu ko lebal suñu entreprise yi donc entreprise yi am na lu bëri aussi lebal nañ leen ko ci def li ñu naan également euh, vacances fiscales ay ay lempo yoo xam ne dañ ko waroon fay finalement lempo yooyu mu jiw mu jiwuñ ko fay ci année bi donc loolu yëpp dafay loo xam ne accompagnement la boo xam ne maintenir na un peu euh, macroéconomie bi donc loolu tamit lu am solo la loo xam ne tey jii nii mën nañ ko wax euh, lii ñëw nag lii ñëw nag ah vague bi yi ñëw doy na waar que dafay laal économie yëpp yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Europe c'est vrai que ñun ñu ngi xeex Covid bi fii bu baax. Ah. waaye Europe Covid bi daf leen dépassé. Euh, Amérique Covid bi dépassé na leen. Euh, Asie bi dépassé na donc loolu dafa poser problème euh, ci li ñuy njort daal dina métti bu baax dem beeg dikk beeg yooyu mm. économie bi échange yi dina métti lool lool lool ci at bii di ñëw. Mm-hmm. donc ñu ngi xaar daal. d' accord mais ginaaw juróom euh, ñetti weer euh, bi ñu nekkee ci mbas mi tey boo doon natt njeexital yi ci wàllu exportation euh, lan lay nekk. waaw loolu loolu moom c' est c' simple tey mënuñu wax impact cest naka la mbir mi di laalee secteur exportation yi yëpp. Hmm. naka la mbir mi di laalee doomu Sénégal yi nekk seen biir réew biir kër. naka lay laalee ñi nga xam ne ñoom ñoo doon am koom-koom ci mbirum exportation. Mm. loolu mooy impact mesurer impact bi. waaye yegteguñ foofu waaye effet yi mooy fi mu ne nii effet yi mun nañ ko mesurer tout de mun nañ ne ñi doon jaay seen seen seen jaay wàññeeku la. Mm. ñi doon produire war ko yóbbu extérieur tey amatuñ compétitivité au niveau international mooy lan mooy euh, tey transport bi cher na tey production bi cher na. tey dem dem beeg dikk bi yombatul et cetera loolu yëpp tey dafa am ay effet tout de gis nañ ne par exemple damay jox benn exemple am na entreprise yu bëri yoo xam ne euh, perte nañ ba soixante de soixante dix à cent pour cent de leur chiffre d'affaires hmm. soixante dix ba cent pour cent de leur chiffre d'affaires entreprise yu bëri perte nañ ko xam nga loolu dafay doy waar su hmm. fekkoon ne amul woon am am amul woon accompagnement euh, état du Sénégal moom kenn xamul euh, fan lañ doon toll chômage bi yokk waaye au au moins y a eu l' accompagnement de l'État mais effet yi daal les effets immédiats yi ñu gis effet waar la yoo xam ne métti na pour entreprise mhm. alors ñu wax ci Covid bi euh, en tant que euh, doomu jàngoro euh, xam-xam ci wàllu wér-gu-yaram aussi am nga ko ma fàttali nu yow docteur d'état nga ci wàllu pharmacie option industrie pharmaceutique tey gis nañu Sénégal malgré que àdduna bi yëpp mi ngi tàmbali jugat moom doomu jàngoro ji fii Sénégal ñu ngi dund ba tey wàcc goo xam ne chaque jour aussi ñu di ko nemmeeku loolu yow ban jàngat nga ci def. waaw jàngat biñ ci am mooy stratégie bi moo baax stratégie Sénégal moo baax gis nga euh, gis nañ que ne au niveau mondial jàpp nañ ne bu ñu jëlee les deux cents pays des Nations Unies Nouvelle-Zélande rek moo ñu gën stratégie après Nouvelle-Zélande Sénégal moo ci topp donc ñun ñoo gën stratégie Afrique ñooy ñaareelu stratégie bi au niveau mondial euh, boo amee euh, une stratégie boo xam ne au départ stratégie parce que stratégie da ngay anticiper ba pare soo anticipé wul rek affaire bi daf lay raw Europe anticipé wuñ Amérique anticipé wuñ euh, Chine anticipé wuñ et cetera ñun nag dañu anticipé c'est-à-dire balaa feebar bi di ñëw la ñu teg li ñu naan mise en place du comité bi nga xam ne moom mooy yore mbirum pandémie bi premièrement li ñu ci gën a jàpp mooy implication au plus haut niveau de l'État parce que loolu tamit dañ koy fàtte très souvent réew yu bëri au départ seen seen président ci boppam moo daan wax ne feebar bi amul wala feebar bi garaaw. comme Brésil par exemple président si boppam moo ne feebar bi nar a ñëw feebar bu jéggi dayoo la nañ ci jóg. donc implication au plus haut niveau de l'État premièrement deuxièmement mise en place du comité euh, bi ñu mettre en place un euh, comité bi ñu def li ñu naan stratégie d'anticipation et d'adaptation mooy nga préparer li nga xam ne ñëwagul bu ñëwee lu ñëw nga xool lu mu ñëwee fokk euh, fexe ba fagaru donc ci loolu la def stratégie yu njëkk yi bloquer frontière yi au de au delà du fait de blo bloquer ces euh, ñu xool ñu xool euh, su fekkee ne su fekkee ne feebar bi dugg na naka la ñu def euh, bi ñu gisee loolu ñu ñu commencé def ay test ku ñu testé positif PCR ñu hospitalisé la sa contact yëpp ñu yóbbu la ñu yóbbu la hôtel ak yooyu bi ñu avancé avancé avancé ñu gën a maîtriser li ñu li ñu naan transmission communautaire bi ñu ñu généraliser li ñu naan euh, li ñu naan euh, port du masque geste barrière euh, couvre-feu état d'urgence donc loolu yëpp moo tax mais jël population bi ne quatorze millions de sénégalais yi yëpp dañu impliqué wu ci xeex feebar bi mooy la partie combat communautaire donc loolu yëpp moom moo tax tey jii nii ndànk-ndànk Sénégal di avancé di avancé di avancé ba changer stratégie bi en fonction de la situation en fonction également di ñu naan de la mutation du virus parce que c' est en fonction de ça te la ñu xool gis que ne maintenant soxlaatul ñuy jël contact yi di leen hospitaliser mais dañ leen di confiner seen kër ñenn ñi tamit malade polysymptomatique yi dañ leen di confiner seen kër euh, également ñi nga xam ne tey mooy euh, personne vulnérable dañ leen di testé lu bëri ñu yokk test yi test yi dépassé mille mais test yooyu duñu ko yàq c'est-à-dire duñu testé ay contact contact mais dañuy testé ñi nga xam ne tey ñi ngi troisième âge ñi nga xam ne am nañ feebar yoo xam ne ko comorbidité mën na indi problème ñi nga xam ne am nañ problème pulmonaire ñi nga xam ne am nañ problème de diabète nga xam ne am nañ problème hypertension ñi nga xam ne dañ ils sont asthmatiques et ñëpp tamit ñu leen di tester au fur et à mesure pour xool naka la ñuy ba léegi tey tey tey tey bu ma gisee journée tey tey tey yegsi nañ quatre-vingt-dix pour cent de taux de guérison loolu quasiment moon au niveau mondial presque kenn amu ko donc dañu continuer xeex bu ñu continuer xeex Euh, gëm naa ne feebar bi dinañ ci mën a dinañ ci mën a génn incha mhm. alors euh, lu jëm ci euh, mesures yu bees yi nga xam ne kilifa yi jël nañ ko mhm. concernant surtout test yi ak yooyu yaakaar nga ne mun na dimbali réew mi mu muccu si li réew feneen muy deuxième vague bi. ah oui dinañ mun dimbali bu baax parce que tey mesures yu bees yàlla mooy dañu fexe ba ci biir ñun Sénégalais communauté bi communauté bi si boppam. maîtriser feebar bi moo tax y a une communication très forte pour que doomu Sénégal bu nekk xam feebar bi lan la xam virus bi nu mu mel xam naka lay duggee ci yaram xam naka la ci nit ci di fagoroo musul am une communication pare ci mbir ci mbirum feebar euh, ba nga xam ne sax doomu Sénégal boo oo ne ko Covid xale sax soo ko gisee ne ko Covid nan la et cetera dina xam donc day xam moom naka lay fagoro mm-hmm. xanaa ku def lu la neex mais ku ku xa ku ku ku ku war information am nga ko ministère chaque jour muy communiqué ci kaay euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk autour chaque jour ñu ngi dem ci plateau yi di waxtaan di di wax sénégalais yi naka la feebar bi duggee naka lañu ci fagoro hmm. donc loolu dafa bokk ci stratégie généralisation masque yi dafa bokk ci stratégie euh, distance barrière dafa bokk ci stratégie également li nga xam ne moom lañuy def yokk test yi di testé ñi nga xam ne tey ñoom ñoom ñoom ñoo ñoom la feebar bi ñu mun a mun a mun a mun a yóbbu euh, cas grave ak yooyu loolu yëpp tey jii nii euh, dafa bokk ci stratégie te su ñu ko continuer nii ñu ñi gën ci impliqué gëm naa ne incha allah dinañ ci génn. Mhm. soo xoolee frontières yi dañu indi leneen. Mhm. parce que cas yu bees yi ñu ngi ñëw. waaw euh, cas importé yi am na ñu ngi jógee extérieur ñu ngi ñu gis suñu leen testé AIBD ñu gis ne ñu bëri dañu am Covid bi parce que ñu ngi jógee extérieur léegi ñu changé affaire yi ne léegi. képp kuy jóge extérieur balaa ngay euh, balaa sa compagnie di la wax di la jaay billet dafay vérifier ndax def na test pour nga mun dugg Sénégal hmm. loolu tamit lu am solo la parce que ñun mun nañ def lépp ba dindi ko biir si biir réew mi waaye suñ ko dindee keneen ñëw indiwaat ko dañuy dellu si point de départ donc loolu tamit moo tax ñu indi stratégie boobu bu bees boobu. jërëjëf docteur Malick Diop ñu ngi lay gërëm bu baax amoon mbégte lool dalal la ci euh, matinalu tey bi euh, fàttali ni yow yaay directeur euh, général bu ASEPEX nekk aussi il y a quelques jours vice-président bu BIE mu di bureau international des expositions bu Paris.